waa gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi ci Forum Sport tey nag war a ñëw euh, wax ci li nga xam ne mooy Iliman Ndiaye xale ba nga xam ne toj na fële ca Champions League mais laataa loolu dañu wax tamit ki nga xam ne mooy Lionel Messi wax ci ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé. mais nag dañuy njëkk commencé ci Lionel Messi pour wax li nga xam ne nag ci ay performance mais laataa loolu dañoo yéen ñi ci te ngeen bës notification bi pour ngeen am suñu vidéo Ota Real waaw ndax loolu ngeen ñu mën a jàppale ci fii ci suñu seen ci Remo Sport pour ngeen am suñuy information pour ngeen am suñuy analyse pour ngeen am suñuy jàngat ci équipe nationale bu Sénégal ngeen am tamit suñuy jàngat ci football Afrique ngeen am suñuy info ci football mondial ndax Remo Sport bàyyiwul dara heure bu euh, abonné yi gën a yokk rek mu gën a xam ne da soxla information yi dana leen indi lépp lu ngeen soxla fii ci Sport ñu commencé ci ki xam ne nag mooy Lionel Messi meilleur joueur tous les temps ki xam ne bi ci Messi Chris ak Messi kan mooy meilleur joueur bi mu ne kat Messi moo nekk meilleur joueur bi ko ah, boo xoolee trophée individuel raw na ci Chris trophée ki nga xam ne mooy Dani Alves moo jël Messi Messi jël 42 trophée kon nañu jàpp ne Messi bu jigéen championnat Espagne euh, championnat France ak coupe de France Messi dana ñëw ci ku euh, euh, wetu dal Alves wala sax mën naa mu raw ko bu jëlee ñaari coupe ren day nekk koo xam ne mooy ëppale dane Alves ay titre kon Messi daal amatul débat bi waaw fële ca Argentine Argentine nangu nañ ne Messi mooy meilleur joueur tous les temps waaw fu kon Messi mooy meilleur bi ñëw ci ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé gars yi nee nañ Kylian Mbappé dàqul ba léegi enfin mi ngi wax ne kat musuma wax ne damaa tëjal euh, Real Madrid samay buntu pour ci ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé kon Real Madrid bu defee ay œuvre pour bëgg a jënd Kylian Mbappé loolu war a maa nekk la euh, na am ay waxtaan yu am rek ci diggante li nga xam ne mooy Paris ak Real Madrid mais loolu nag euh, nouvelle bu neex la pour ci Lionel Messi pour man Kylian Mbappé bu jógee Paris Messi boo fa laata ñettaan di góorgóor di di góorgóor di kon Messi dana am bu a jaar ndax France jàppale na foog Paris jëlee Ligue des champions rek amul sikk sàkk jox Mbappé ballon d'or bi ndax nag Mbappé vraiment guddi yi mën a wax Paris te waxoo Mbappé ndax day jël ay initiative am jël ay risque ba fu Paris egg mën nañoo Mbappé bokk na ci jour yëkk fa yeggalee kon kii leen Mbappé am na mérite bu réer ci football mondial euh, kon na xool bu ci soowaay mi def bu mënee dem Real Madrid mën a nekk foofu seen star mën koo jël ay Ligue mën ko jël championnat mën ko jël coupe de roi mën ko jël coupe du monde des clubs du ko bañ kon nag jàll seen ki xam ne mooy meilleur joueur championship instant yi mooy coow ah mooy waa Sheffield United yëpp moom la waxtaanee dugal na neuf bi am li nga xam ne mooy quatre passes décisives soo ko boole mu nekk tris bi yoo xam ne Iliman Ndiaye dugal na ci loxo bu baax a baax boole ci ay double yu réer yi di ko def foofu ci championship kon Iliman Ndiaye dóor la boo xam ne vraiment vraiment mi ngi wane boppam bu baax. vraiment mi ngi wane boppam bu baax a baax a baax di wan ne man kat maay meilleur ci championship ñu koy ñaan nak bu mu joggé fofu da gëna concentré bu baax wala bu fay joggé timit na FPR am club bo xamné fu fa nekké day titulaire am temps bu temps jeu bu doy day temps jeu bu doy pour mëna a bopam ndax bu ñu nga joggé rek champion sheet dem ci ay club yu mag di tok ba comme ni ko xalé def non non ndax club bi nga nekk ren lu metti metti mëna mën Premier League ta bu yëgee Premier League yaay nekk estaram ta war na ma def ay rek ay yeneen jour jënd leen pour mëna a def Premier League bu baax baax ta su boba da nga 1000 francs pour di bok ci Ah, vingt jours yi nga xam ne dañ leen di waxtaane Premier League kon gars yi loolu moo nekkoon information bi ak jàngat bi ak commentaire bi wooy leen di abonné di partager di liker ngeen ñi xaar fii ci Rmo Sport ak ci suñu chaîne ci beneen ci yeneen numéro ak ci yeneen vidéo Rmo Sport dama koy wax toujours bàyyiwul dara yéen samay internet yéen ma fa tax a nekk rek toujours damay bëgg ngeen di kontaan bu baax a baax ndax nag dama leen a war bégal bu baax a baax merci beaucoup